مصطفى إذ جاء يمطار من تمر المدينة ñu ngi nuyu kilifa yi fi nekk yépp di leen ziyaara di leen ndokkeel it di ndokkeel suñu bopp di ziyaara ñépp ci àjjuma ju tedd ji di ñaan yàlla mi am sutura yal nañu yàlla boole defal sutura ñi ñuy jukki di leen nuyu du dara lu dul rek dañ yaakaar ne war nañ leen mën a tudd ñu yóbbaaleen ñi ñu ci des loolu la te teg ko ci dëgg rek jullit day bëgg boppam jullit day fonk boppam beneen bi ci des journaliste RFI boobu moom ñun xamul ni ñun jullit ñi mën nañu ne mucc ci corona corona virus xaw ma mën nañ ci mucc ndax ñun bër bu set ñu ngi sangu ñu ngi jàpp waxtu yi juróom yëpp dañ koy jàppal ñun ñoo leen gën a set mooy dama wax rek ñoom ñu set wecc ñu ngay jeex ñun ñi tilim boog ñu ngi ñu ngi demaguñ di ah, jullit bu tilim amut ndax lu mu gàtt gàtt di nga jàpp juróomi yoon ci bés bi dëgg la wala lu dëgg waaw ah, kañ ki kiy jàpp juróomi yoon ci bés bi kooku mënatul tilim mënatul tilim an nazaafatu min al iman salaay sallam ne na ci ak cet muy xay ci ngëm yàlla la bokk kon ñun mën nañ ci mucc bi ci des nag du égoïste de waaye taalibi tiijaan bu jàpp tarixa pest du ko dugg ndax virus yi lay dugg pour éliminer la salaatul faatiha ci moo ko moo ko ëpp doole fuuf nit ñi xamuñ yonent bi xamuñ yonnant bi dañuy fo moo tax moo déggee ñu naa waaw màggalu poroxaan ak ziar général nit ña fay daje ma ne nañ ko def màggalu poroxaan jàll na ku fa dee ku fa kore na sëñ Tuubaa am lu ëpp kore na am lu mën a combattre kore na ñun duñu ay tubaab ay jullit lañ liñ matuwaay yi ñu war a jël nag nañ ko jël ministère de la santé jël na ay matuwaayam président de la république moo yilif réew mi yilif yilif ñi ci biir réew mi jël na ay matuwaayam ba ci conseil des ministres jëm ba ci ay ñi muy yebal ñuy tukki li président def doy na sëkk ministère de la santé sàgganuñ man avant lii di yaatu bi ma ñëwee cëpp yàlla rek a tax may wax wana ana um faal yi mu ngi fi biñ ma jël ba may dugg ba may génn maa ngi fa fekk ku ñuy wax Alassane Guèye waaye mes lañ ko gën a xame bu ma seetaanee dina xam li may wax mes dem na retraite moo ma daan accueillir bu may jógee aéroport dem na retraite ma ñëw fekk ko mu ak équipement am ak beneen jigéen ma ne ko waa mes kañ nga fi nekkat mu ne ma dañ ma rappeler pour ma ñëw former ay xale parce que dañ yëg feebar boobu bu xew bees dañ bañ mu dugg ci biir réew mi te boobu yëf yi tolloogul fi Alassane Gueye muy mes di sama xarit agent service di d'hygiène la nekkoon aéroport Léopold Sédar Senghor bi ñu toxoo mu ànd ak ñoom euh, daaw la retraité mais dañ ko jëlaat pour mu former ay xale mais nit ñi ñuy wax yiw gis nga lii buñ buñ buñ fi nekkee naan pest pest peste peste def ko ci suñ bopp yi la def ko ci suñ kii yi ñun ñooy sonn rek nañ jël choléra bàyyi ko waa Corée nañ ko bàyyi ak ñoom te ñaanal leen yàlla mu deñ fa mbon mbon yi ci àddina bi rek la yàlla di wone ne man yàlla neexuma te billaay bu dul loon sallallahu alayhi wa sallam dana fi ëpp bu dul loon rasulullaay dana fi ëpp ndax mbon ngi xew ci àddina bi lu neex waay def lu neex waay wax ñuy éliminer jullit ñi benn par benn kenn waxut Syrie ngi nii ñuy rey ay xale di rey ay jigéen di déplacer ay milliers de personnes ñu yaakaar ne loolu yàlla dana bàyyi rek mu jàll dafa ko mu nattu leen ñoom itam na ñële di doñ doñee ñuy rey seeni doom ci seen kanam ñii seen doom di dee ak xiif ci seen kanam ñii seen doom di feebar ci seen kanam duñu am garab buñ ko jox ay jigéen yu tuuti ay xale yu jigéen ñu di leen violer ay xale yu jigéen tey rek maa ngi ciy seetaan France 24 kenn ndeysaan xale bu jigéen bu ndaw nga xam ne ñii dee sax safatu leen parce que coono yi nekkee moo gën a métti dee ma ne lii lii àddina bi yëpp teg ci seen bët di ko xool ñu foog ne yàlla dafa bind jaamam yi pour ñu di leen foyee nii ah, yàlla dina ko fajal boppam moo tax muy indi lii teg fi ngeen di rey siri muy rey fii rek moom itam mu jeex kon euh, yàlla liy xew ci réew mi àddina yi neexu ko nañu soppeeku gis nga tubaab yi yàlla dina leen woon boppam ne xam nga feebar bi dañ duñ wax ñoom exact mais ñoom ñu jeex moo gën a yomb ñun ñu jeex ndax feebar bu màndu la moom yebul Afrique feebar bu raciste la yebul nit ku ñuul moom tubaab lay bañ a gis waa parce que boo xoolee continent africain yi ay benn ñaar lañ ciy wax te ñoom ay étranger ko fa indi ñoo ko fa am kon kañ yàlla épargne ñu ñu nañ xool lan la ndax feebar bi ñaar lay bañ sedd te ñoom seen di réew ya comme galaas waaw ah, kañ su ko defee nag ñun saboté wuñu leen waaye nag ñoom ñu bu ñu leen saboté wul ñu ngi leen di dimbale di leen ñaanal yàlla nañ ñu bàyyi journaliste RFI boobu bu nekkee fii di ñu xas ñu itam ah mën nañ koo xas waaye ñun newuñ fi pour xasante dëgg dëgg nag dafa juum ñun africains yi dëgg dëgg suñ dëkk yi salte nañ waaye salte wuñ ñun nag waaw mbalit maa ñuy bëgg a rey mbëbës a nga ne leen boo fa rombee sa yaram day daw Kër Masaar man bu ma fa jaaree dama naan ñii nuñ mën a dunde saxaar safa nekk loolu loolu maa ngi ñaan état bi nañ ci jël ay disposition jëlee ko fa loolu man maa koy ñaan man nag sama ñaan état wàññiwut dara yokk leen dara wàññiwu leen dara waaye ci réew mi laa bokk na te su ma sañoon réew mi gën a baax ci réew yépp Sénégal ci lay bokk su ma sañoon réew yi gën a avance yépp Sénégal ci lay bokk kon maa ngi ñaan état bi yàgg nañ koo wax yàgg nañ ko wax depuis ci président Ablaye wàdd maa ngi ñaan président Macky Sall maa ngi koy ñaan jaaree ko ci rakkam ju baax ji di Alioune Sall monsieur le maire maa ngi leen di ñaan ba ci euh, Fofana ministre de la jeunesse maa ngi koy ñaan ah ministre de l'environnement ak ministre de la jeunesse yëpp maa ngi leen di ñaan luñ ci mën nañ ko def pour ñu tëj mbëbës man amoon naa ay gani tubaab yu ñëwoon fii ma eh, ma dalal leen benn résidence bu nekk foofu mais ñetti fan lañ fa def ne dañuy toxu parce que mënuñu noyyi te ña fa dëkk tàmm nañ ko benn résidence bu rafet fa laa leen dalaloon mais dañ ne mënuñu fa dëkk parce que mënuñu noyyi dama leen mujj déplacé indi leen ndakaar ma ne ñi fi dëkk kon nu ñuy def kon maa ngi ñaan le président de la république jaare ko ci rakkam nag mooy sama buntu ci moom ndax Abdou Latif Guèye moo ne woon sama buntu ci président yàlla yóbbu na ko léegi monsieur le maire Alioune Sall mooy sama buntu ci moom kon président man jàmm bu doyee di bii bu xeebu bii waaye bokk ci réew mi te bëggal la jàmm bëggal réew mi jàmm maa lay ñaan mën nga ko am nga ko sañ nga ko mbëbës laa lay ñaan nga déplacé ko ordure yooyu nag ñu seet nuñ ko transformé ba mu jëriñ ñu mën nga ko monsieur le président de la république man sa xarit maa la koy ñaam ñaan li wajhillaahi nga defal ko population bi boo ko defee yàlla fay la ndax santé nit ñi lu bu jar a bàyyi xel la ku wérul du liggéey ku wérul du jàng ku wérul du def dara te mbalit moom xet gi muy dégager ak saxaar safa ne mënta ànd ak wér-gi-yaram maa ngi koy ñaan encore une fois maa ngi la koy ñaan son excellence monsieur le président de la république gardien de la constitution monsieur Macky Sall man sax xarit sa soppe sa wëllëre maa lay ñaan balaa sa reñ ji jeex maa ngi yéene naa la ñu ne Macky Sall président de la république Macky moo fi jëlee mbëbës yéene naa la ko boo ko defee yàlla fay la yal nañu ci yàlla dimbale dimbale la ci ajaa cheikhu tabaarakallah ci caw soxna caw kon yéen ñépp fii ku fi ne rek xam naa la waaw billaay wal kitaab fii ku fi ne rek xam naa la bu leen yaakaar ni ñi fi ñëw ñëpp ba ci gàmmo gi ku ma nuyu mën naa jaar ci sa tur loolu yàllaa ko def bi ci des mooy nit ñee ma ko lebal ma jéem leen ko fay rek jeex na te nit bu la yëgee da nga ko war a yëg Cheikhul Hadj Abdoul Aziz daan wax ne cofeel mbëggeel mu ne yëg rek a koy fay waaye maa la raw fayeetu ko waaw Adja Aida ba bële nag moom laa njëkk a jox ci kaw suuf moom bu ma neexee la Diop Ndiaga doon wax sama taalibe numéro mooy sëriñ Mansour boroom daara yi waaye Aida Diop mii mooy taalibe numéro un ci kaw suuf waaw ndax imam Moussa Guèye moom ma booleeg moom moom laa njëkk a jox wird bi Cheikhul Hadj Abdou Aziz génne àddina kon Hadj Mansour suñu nijaay ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm fi ñuy jeexale suñ kàddu ñu ngi koy sant di ko gërëm sëñ Thierno mii Thiès lay jóge xale yépp xam nañ ko muy ku baax waaye li ma gën a neex ci moom it liggéeyam la yor di liggéey sëriñ gi dafa ko mécc sëriñ du mécc sëriñ danga cay dimbalaate rek sëriñ si ñuy topp ñoom ñëpp am mécc sëriñ Cheikh gis ngeen wax na ko ba tey nee na am na camion boo xam ne bi mu ko jëndee sax moo ko daan dawalal boppam camion xam ngeen camion di yépp nee na maa ko daan dawalal sama bopp ba xëy joxe camion ba dugg ci yeneen ak yeneen ak yeneen waaw képp kuy ut yàlla danga koy booleeg ñaq ci ngay gaaw am yàlla waaye yàcc rek yàlla tiif ah baax na yaa latif nañ ko bàyyi jigéen ñi la ca maternité ba di matu ñëwoo yàlla tiif ba mucc ak jàmm waaye xale bu tuuti borom kawar gu we- ñuul kukk toog yor si kurus naan yàlla latif di nga xëy bëgg dépense mu tëla de wala nga bëgg a takk jabar doo gis foo ko jëlee da ngay xëy dem ca marché ba wala nga xëy dem yëngatu ji booleeg yàlla tiif ay toog rek yor sa kurus yaa latif yaa latif yaa latif noonu la yombe bu yombee woon noonu ñëpp latif ay yombeewut noonu yombeewul noonu turu yàlla du noonu day ànd yëngu mag ñëpp a daan yëngatu a daan maam borom Touba Cheikhul Hadji Malick maam Limaamu maam bu Kunta Ndiassane maam Abdoulaye Niass ñoom ñëpp a yoroon ni tool di bay waaye ñun léegi cëriñ gi métier lañ ko bëgg a def koo gis mu nga ubbi pantare di wax yu kenn xamul. koo gis rek mu nga ubbi pantere di wax yu kenn xamul ñii boot ay loxo ñu di leen tiyel seen grand mbubb booboo xew léegi man dama koo gis ma ne waaw lii lan la mel ni ku dem gannaaw kër ñu lay raxasal sa mbubb lii lan la di dox ñu téyel la sa grand mbubb ci ginnaaw charia dafa bañ mbubb muy buubu xoolal sëñ Hadji Malick mbubbam bi xool gis ngeen ko xoolal sëñ Babacar Si colam gi xoolal maam borom Touba photom yi ñoom ci charia lañ teg seen col mbub muy buubu dañ charia daf ko tere léegi nag nga ñaw ko benn waay ci yéen la ko ca gannaaw maa ko gis kenn nettaliwu ma ma ah, de phénomène bu bees la waaye baaxul di génn rek ñu téye la sa mbubb ca gannaaw ngay ñonkos ñonkos loolu tamit ak cëriñ yaa googu dafa metti dafa métti daanaka jaam ngay xaw a ut nañ simplifier mbir yi wàccaat ci suuf mataat sëy nañ wàccaat ci suuf nekk ay nit simple jaamu yàlla terewuñ ko kenn waaye buñ ko def métier nañu ut métier nañu ut métier nañuy liggéey nañuy liggéey nañuy liggéey nañ gëm liggéey ku ciy liggéey gëm ko xëy heure wàccu heure bàyyi tappale sénégalais mënul xëy heure mënul wàcc heure su liggéeyee semaine mu ngay jàmbat ah bu liggéeyee semaine mu ngay jàmbat semaine ba ca topp rey na maamam wala bàjjenam fekk bëgg a dem ngénte rek amadike nañ liggéey réew mi gëmuñu liggéey ñu baal màq nag man toujours dama koy wax te yéen ñépp xam ngeen ne li may wax dëgg la ñi ko fi gëm ak ñi ko fi gëmul boo leen doon séparé boo doon ut pour pourcentage doo am 10 pour cent da gis ko dem waaw kañ yow ana lan muy door taxawal mustachidina wal mustachidat dafa woo daayira bi ñu ñëw toog mu ne leen tey dama am benn membre bu ma bëgg ñu rendi ko fii gas ko suul te bu ko kenn yëg ñëpp jaaxle ku ne foog ni yow la sëñ Moustapha bi responsable moral mu ne leen dafa am membre bu ne ci suñ biir dama bëgg ñu jàpp ko léegi rendi ko léegi gas fii suul ko te bu ko kenn yëg te bu ngeen génnee bu ko kenn ŋaan ah ñu ne ko waaw ah, yow kañ yaay suñ kilifa loo wax di d'accord nañ ci ban membre la mu ne gaaña membre bi ñuy wax gaañi nee nañ kuy gaañi sëñ Moustapha ne leen membre bi ñuy wax gaañ yi nee nañ mu ne kan mooy gaañ yi membre boobu laa bëgg ñu rey ko gaañ yi nee nañ kan mooy gaañi yi musaa Moussa Gueye dolli ci ne papaam Baye Ousmane géey moo daan wax ne mu ne li nit ñi gën a mën mooy soo demee soo demee Hachim a ko wax soo demee Hachim. soo demee soo demee billaay boo demee oustaz si di may génn ci boo demee Mansour Thiam a ko wax boo demee mu ne boo toogee na mu ne boo demee rek li ñuy yónni boo demee boo demee boo demee boo demee ba tas dëkk bi ci boo demee yooyu yépp nag nañ ci bàyyi xel waa Chérif Cheikh Tidiane may leen ko mu jàll si ni ñoom sax ñu jox ko rek mu tëj kàddu gi ñu tey moom waa kii jël tariqa bi na ñëw waaw kay toog nii Chérif kay toog nii Aydara Karara moom sama frère la toogal sama rakk la sama xarit la Chérif Cheikh Tidiane Aydara di doomu Chérif góor gi ay dara bu Sokone Chérif góor gi ay dara mu ngi tudd bun aama suma juumul waaw shérif bun aama la tudd ñu naan bun aama waaye orma guñ ko jox ca sookoon nag moo tax tur wa kenn xamu ko góor gi ay dara rek lañuy wax shérif góor gi ay dara mook sama bàyyi ñoo daan ànd moom mën na bind livre ci sama baay Chérif Maamin ak tafsir Abdourahmane Gaye fekk nañ ko ca Passy pàppaay pàppaay soxnay Cheikh Seck ancien gardien équipe nationale pàppaay euh, euh, soxnaam xaw ma naka ndawati waaye na ma bàyyi soxna si ndaw la sant baayam waa passé la moo génnoon àddina Chérif Mamine ak Tafsir dem ca dëj ba fekk fa sa papa waaw keroog Chérif Mamine nee li mu wax ci sama papa ñoom mosuñu dégg loolu waaw yaakaar naa ne ñi gën a xam sama bàyyi góor gi ay dara ci la bokk du tiitaroo de waaye turi yàlla yi nit ñi di tiitaroo dem leen ngeen laaj góor gi ay dara ca sookoon li ci sama bàyyi daan def ni mu xamee woon turi yàlla ëpp na du tiitaroo nag te mosu leen dégg ma wax loolu te mosuma koo jàngal nag man lu ma xam ci Alaaji Abdul Asiis laa ko xamee lam ma joxoon yëpp mu nga ne ci kees ga ca kaw masuma ko xool sax awma ci soxla billaahi wal bi ay fanweeri fanweeri kunnaas la ak lu teg balaa maa dee dinaa gas yëpp suul ko soxlawuma ko te samay doom soxlawuñ ko man li ma am ci sëñ Abdu la jóge moom laa soxla soxlawuma leneen fanweeri kunnaas ak lu teg yépp ci tur yàlla la mu ngi fii ci kaw ci bibliothèque bi ci kaw laa ko def léegi pour won leen ne yooyu yëpp amul solo li ma leen di wax man loolu lay dund yaakaar naa su ma juumul ñaari ñaari kunnaas yi laa mos a te yeggut bu ci nekk ñaari page laa ci xool ne lii daal coono la sax nekk fii di ko liir sax coon la ci sama bàyyi ma ko jox ni lii nekk fii sax di ko xool coono la lii daal yi moom mag ñee ko moom naa leen ko bàyyee rek man daal du Abdou day maa ngi ciy Cheikh Al Hadj Abdou Aziz moo gën a yomb moo gën a gàtt ndax moom xol ba rëy na yàlla boo ne da baax Malick rek mu yóbbu la ci yàlla bu dëggoo ci yow da baax Malick ji bu dëggoo ci yow rek mu yóbbu la ci yàlla bu dëgguwul sax dana ko jéem ba foo mën a yem mu yemale la ah, waaye du rejeté kenn moom sëñ Abdou du rejeté kenn kon Chérif ñu ngi lay nuyu di la ziyaar bu baax ay dara karaana di la jox sa wàccuwaay ci sa maam di nuyu suñu wayjur wi ñu bokk di Chérif Bun Am di góor gi ay dara ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara ñu ngi déggit sa intervention bu rafet ba nga def ca Njaasaan balaa may ñëw wax nañu ma ko su ma sañoon nag fekk la ba waaye Sidi Maxtaar Kunta moo ma ko wax dama def nga fa waxtaan bu am solo loolu ñun nga ko defal suñu rakk la waaye suñu xarit la mooy taaw góor gi ay dara ca Sokone xaw ma woon ne sax tey dina fi ñëw waaye fii sa kër la kuy dem sa kër doo tàggu wa iza daxaltum buyutan fa sallimu ala ahliha taxiyatan min indillahi mubarakatan tayiba ah, loolu la yàlla wax de ci suratu nuur waaw ah, kañ ci suratu nuur la ko wax de waaw kañ ah, ah alquran dafa riche wax naa leen ba tàyyi nañ jàngal alquran hmm. wax naa leen ko ba tàyyi nañ jàngal alquran tey tey yàlla dafa ma xiir may déglu Serigne Cheikh waaye léppam alxuraan la ni muy def alxuraan ëpp Serigne Cheikh a digg alxuraan laa ilaha ni mu diggee alxuraan ëpp na tey fi mu doon waxee safara du fees moom laa doon déglu tey mu ne safara fi muy fe yàlla waxul fenn àjjana dina fees mu ne te safara dafa géñ ne la am la am na jahannam te muy dëgg lu jiitu laaye ji lu jiitu la am la am na rek baat bi am na baat bu ko jiitu xafaas yi kenn newu fi xanaa làmbal leen ma ko rek li jiitu baat bi balaa nga yegg si la am la am na jahannama yàlla da koo giñ ne dinaa feesal dell jahannama minal jinnati wa naas ci nit ak jinne ah jazakallahu xeyran qaala fal wal xaq aqul la am la anna jahannama minal jinnati wa naasi ajmain qaala fal xaq mu ne qaala wax na de fal xaq ca dëgg dëgg dëgg dëgg yàlla lum géñ na wal xaq maa ngi géñ ci dëgg gi man yàlla aqulu wax naa ko te dina am la am la an na maa ngi géñaan laa mu xasam na la am la an na danaa feesal jahannama jahannama minal jinna ci ci nit wa naasi mina ajmain mboole seen mu ne yonent bi yër gis ni safara xóotee yaatu rëy xóot mu ne mu xam ne buur bu toll ni yàlla doo xam mu ne mu xool ñi fa war a dem bari te ñi war a dem àjjana bariwuñ nee na mu ne Jibril nu may def mu ne Jibril na ko am nga ci solution de man moom ñemewumaa wax wàccee ko rek lañ ma waxoon wàccee naa ko jox la muy alquran ji waaye dinaa la déey lu gàtt na mu ne ko xam nga loo may la yëgal tefesu ko rek te feesul yàlla rek ndax tuddee na la rauf rahim mu ne ko sukkandikul ci rauf rahim boobu rek ak sa aktaab yi ngay am ëllëg waaw ñu di ko weddaa ñaamu rek mu ne dana wax di ko wër rek mu ne bu yàggee mu bàyyi lu bari mu ne yonent bi nekk ci rek nekk ci rek nekk ci rek léeg-léeg yàlla wax rek mu ne ko xool ma ci rek xool ma ci xool ma ci xoolal ma ci mu ne ba yàlla ne ko aw ma ci pexe te yow bëgg naa la maa la tuddee rauf rahim laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun aleykum bil muminina raufun rahim mu ne ko maa la ko tuddee te sa tur woowu maa ko moom kon am lu ma ci nam ma mu ne ko ay ñi maa yóbbu jahannama yépp nag lahum qulubun la yafqahuna biha walum azinun laa yasmauuna biha wa lahum ayunun laa yubsiruuna biha ulaika kal an'am bal hum adal mu ne ko seen nopp yeggul arash seen bët xoolul dëgg seen xol jàppul dëkk mu ne ko ñooñu ñoog juri kër yee yam bàyyil ma alal leen rek ñu ayal ne ko ba rek yàlla ne ko xool ma ci rek min anfusikum ci man lañ jógee yàlla ne ko laqad zarana jah kasiran min laqad zarana li jahannama kasiran min al jinni wal ins yàlla indiwaat beneen baat teg laqad zarana li jahannama kasiran min al jinni wal ins bàyyi naa place yu bare bare bare ca jahannama pour nit ak jinne yonent bi ne ko tiiñ ma ci rek benn tey xool ma ci rek ma ci rek mu ne yàlla xam ne nag yonent bi li mu koy wax ñor na ko mu ne ko dinaa la ci fekk si waaw roñal loo mën yóbbu waaye bu ci yem say saxaaba luñ mën a roñ nañ roñ te yóbbu boo fi jógee aktaab yi luñ mën a roñ nañ roñ te yóbbu duma tere kenn waaw luñ mën a buub rek nañ buub yóbbu waaw mu ne moo tax sëñ Touba am quota Alaaji Malik am quota Serigne Babacar Si am quota Cheikh naa Cheikh Saad bu am quota mu am limaamu laay am quota mu ne kota yooyu yëpp bañ ñu dem safara rek bañ ñu dem safara rek yàlla joxe quota yu du jeex quota yooyu bokk na ci Seydina Aboubacar bés yonent bi daf ko xool ne ko yàlla bég na ci yow nee na jox na la quota soixante-dix mille personnes yooyu ram mu yóbbu leen ja àjjana juróom-ñaar fukki junniy nit mu ne ko te ni nga koy defee la ko Omar di defee la ko Ousmane di defee la ko abu Aboubacar la ko Aliyun di defe la ko Talxata Zubeyru ñoom ñépp ku ci nekk jox naa la quota soixante di mille personnes yoo xam ne dañ leen di fekk ca biir jahannama xuus génne leen fa yóbbu àjjana te duñ lakk loolu ci gën a neex day xuus ba yegsi ne Sidi Kunta kaay mu ñëw mu ne ko indi sa loxo te moom mu ngay lakk te moom du lakk xam nga noo koy dégg yàlla dafa xereñ prison ba ko koy garde mu ngi ci biir prison bi waaye bokk ci <laughs> dëgg la wala du dëgg prison bi ki koy garde mu ngi ci biir prison bi waaye du prisonnier bokk ci waaw ah, moo tax yaa maaliku udoo lana rabbaka yuxaffif anna min al maaliku niiraan ak maaliku jinaan gis nga yàlla ni mu yeewoo mm-hmm. moo tax suñ maalik mi ah yaakaarul na bi Seydi Hadji Malick gardien àjjana Malick la tudd gardien safara Malick la tudd kii Maliku niiraan kii Maliku jinaan xam nga lu tax yàlla feem la danga naan Malick mu ne la ban Malick te yàlla bu la nee ban Malick rek nga mhm. min zaqum min sajaratin min zaqum zaqum yonent bi salaay salaam nee na buñ ca doggoon benn doom xoos ko ba mu set raxas ko ci juróom-ñaari géej àddina yi ñëw soos ko ci ndox mi nit ñi di naan ku ca naan dee ndax weex zaqum yonent bi salaay salaam nee na buñ ko xoosoon doom ba raxas ko ci juróom-ñaari àddina yi indi ko soos ko ci ndox mi nit ñi di naan cëpp ko ci rek yëkkati ku ca naan dee ndax weex mu ne waaye àjjana butéel ya nga xam ne ñoo def parfum ya ak sàngara sañ fay naan ak lem ya mu ne capuchon bi buñ ko ubbi woon bàyyi ko ci air yu àddina bi mu xeeñ nit ñi bu xesee xeeñ rek kenn dootul xuloog sa moroom ñépp ay juboo kenn dootul bañ kenn butéel ya rek saañ yi saañ butéel ya laa wax ne loolu la yonent bi wax waaw fi may jeexalee jox shérif Serigne Cheikh nee na boo gisee nag yàlla xër ci ñu dem àjjana mu ne àjjana complémentaire la te wax na dëgg mu ne du place bu ñuy dem di noos gaa yi nag lakk sa picc yaa leen fa yóbbu wala xam ne tayrit mi maa yastahuun waaw dëgg la ñoom ñoom waa Njaasaan yi yëpp yooyu lañu soxla woo xawlun iinin waaw noonu la yéen waa Njaasaan yi moom maam moom waa Njaasaan la moo tax ndeysaan maam bi jur ne baayam waa Njaasaan la kunte la sant barkan moo jur baayam ñoom ñoom kuntu yooyu nag lakk sa picc yooyu ak ñoom boisson yaag ñoom njaru soow yaag ñoom xóorun iin yaag ñoom yooyu leen moo leen itteel waaye àjjana du pour loolu àjjana pour nga mottali sa tarbiya ci sa borom moo fa nekk waaw jëlaat culture yàlla looloo fa yóbbu nit ñi su ko defee moo tax yàlla ne zahara al fasaadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi naas mu ni li am fii amul foofu fi yàq ngeen ko waaye foofa kenn amul accès pour yàq fa moo tax kenn du fa tufli kenn du fa dem gannaaw kër kenn du fa tuur ndox amul toilette amul damay sangu amul damay tuur ndox amul damay naan loo lekk rek yàlla def ci wis raxiq gis nga bu dee raxiq ci ñam la bu dee nasiib ci ngelaw la nasiib nag lañu yàlla bàyyee fii raxiq mu téye ko nasiib yàlla nga ko joxoon yoon ci yàlla suleymaan moo tax ñu ci ci dawlaam ci nguuram ak ci yonentam ci la yàlla jox ko secret nasiib nasiib ngelaw la waaye bu njëkk àjjana la ko yàlla kastere woon yàlla bàyyi ko nag filtre ko segg ko ca nam ko neexee moom yàlla ci juróom-ñaar fukki géej wàññi degré bi jox ko yoon ci yàlla Suleymaan te boobu feem la def feem bi mooy yoon ci yàlla Suleymaan dafa xool jaam ñi ñewenti leen xool jinne yi ñewenti leen ndax moom yonent la te yàlla teg na pouvoir yépp ci loxoom yonent la waaye buur la ndeysaan mu dem ba am ñewent ci yàlla mi bind jaam ñi nag xam nga yonent dañuy xër ne yàlla daal dama bëggoon nag nga may ma 24 heures rek ma dundal jaam ñépp 24 heures rek nga may ma ma aw la dundal jaam ñi te xam ne yàlla xam na ne sax yàlla du sonn waaye yàlla ñu doon jàngal yàlla ko bismillah fooy tàmbale mu ne ko dinaa togg xeeti togg yëpp dal di mobiliser jinne yi ndax moom bu mosaan woote jinne yee fay jiitu mu mobiliser jinne yëpp ne leen lu ngeen mën a togg te xam ko ci togg togg leen yekk ndax ñoom seen togg day gaaw mu ne nit ñi lu ngeen mën a togg togg leen yekk taabal ji dox yi ñetti weer la jinne yee ko defar trois mois maanaam boo tàmbalee ci koñi taabal bii di dox pour trois mois la nga yegg ca beneen koñ ba boo demee ci xaasiyatu saawiya ala tafsiril jalalayn ni mu nga fa trois mois maanaam boo tàmbalee ci koñ bi taabal bii di dox jëm ca koñ ba ca des doxu ñetti weer la nga tàmbalee ci yaatuwaay bi fii jëm fële doxu juróom benni weer la yépp mu defar ba mu yegg taabal yépp mu teg ci yépp yuñ ci war a teg ay serviette ak i cuillère ak kuddoog yépp mu teg ci waaye nag mu am benn problème ne lii bu fi yàggee forox daal di ne yàlla am naa problème de yàlla ne ko yow teel nga am problème de man may dundal nit ñi te yii yëpp daju ma ko mu ne ko luy sa problème mu ne ko lii bu fi yàggee forox ma bëgg nga dimbale ma ci yàlla ne ko tàggat naa ngelaw lu ñuy wax nasiib na ñëw rek woo ko mu ñëw yonent yàlla Suleymaan woo ko nasiib mu ñëw rek upp ñam yi mooy frigo ngelaw loolu la tubaab yi fexe ba maîtriser ko def ko ci frigo loo fa denc ñam du forox walla congélateur dañ ci say jën dañ ci sa yàpp dañ ci sa yëpp boo soxlaa rek génne te boo ko bàyyi woon ci biti ñàkk ko yoon ci yàlla Suleymaan ngelaw bu ñuy wax nasiib ñëw upp ñam yépp réglé bi mu paree ba pare nag ne suñ borom pare naa yàlla ne ko pare nga mu ne ko waaw mu ne ko fooy njëkkee mu ne ko loolu laa bëgg a xam mu ne ko fu la neex njëkkee man yàlla jox naa leen digal mu xool xool xool jinne yi ne ñoo ko togg kon ñoom xiifuñ xool xool xool nit ñi ne ñoo ah ñoom it togg nañ ci kon xiifuñ daldi ne yéen ñi ci géej gi yéen laay njëkkee ndax xaw ma fu ngeen ne taxaw ci tefes gi rek ne lépp lu nekk ci biir géej gi génnal te ñëw lekk maa yor seen ration tey benn daaba benn moo ne ñu xeet bopp bi ne ko yaa Suleymaan mu ne ko la labbayka mu ne ko sama borom moo ñu ilham ñun ñépp ci géej ne yaa yor suñu ration mu ne ko mu ne ko anamu mu ne ko taabal jaa ngi nii fu la neex daleen mu ne ko lii tuuti na de mu ne ko waaye yow lekkal rek te dem sa morom ñëw lekk rab woowu ŋaang maanaam tuñu koow mi mu ngi ko teg ca cafel taabal ja bu six mois doxu six mois ak 3 mois largeur 6 mois longueur 3 mois wala astafurlah euh, longueur 6 mois largeur 3 mois mu boole mu bal ma na sama loxo mu bi mu ŋaaŋee wenn ŋaam wi comme tuñ wi mu ngi ko teg ca catal taabal ja beneen ŋaam wi ci suuf mu ron ko ci suuf teg ko ca catal taabal ja boole taabal ji ak palaat yaag bool yaag yépp ne ko diriix wan na ne ko lii nag matul sax sama ceeru lekk ci li ma walla lekk ci journée bi mu ne ko te suma juróom-ñaar fukki junni moroom a ngi ci géej gi xaar ma lekk ñu ñëw lekk yoon ci yàlla Suleymaan rek xaar fa ko ko waxee rek mu rot xam nga lu mu doon sikkar subhaana man man subhaana man ladi takaffala bi ibaadihi rizq loolu la doon sikkar waaye yàgg na fa nag def na fa vingt quatre heures di ko wax yàlla subhaana maa ngi tudd man buur bi nga xam ne te kaffala doy na ko sëkk bi ibaadihi ci jaamam yi arrisqa mu yor seen wërsëg di ko wax di ko wax ba vingt quatre heures yi jot yàlla di ko siggil mu siggi mu ne ko baal naa la wa ma min dabbatin fi l ard wa yaalamu mustaqaraha wa mustawdaha wa mustawdaaha lu tax kullun fi kitaabin mubin mu ne ko rab woo génn duy lekk sax benn araf laa ko jox bu ko waxee rek suuf mu ne ko araf wa nag nga xamul mu ne ko te araf boobu lay partagé ak moromam yépp moromam yépp suur te araf bi lay des benn araf yàlla am kattan wa huwa alqaahiru fawqa ibaadihi kookoo am doole kookoo am pouvoir ku dugg ci géej ba gis géej commandant Cousteau xaw ma xamoon ngeen ko wala déet ku miinoon géej la looloo ko tax tuub li ci biir géej moo ëpp li ci jéeri te yàlla ngi leen kaste foofu jën yi rek ñoo ciy lekkante waaye ña ca des ñépp ku ne am na dundam du lekk wàllu morom du laal sax yëfu moromam hmm. waaw waaw moom buy lekk nu may def dafay daw dafay daw ba jub jën hmm. mu wëlbati ko mu ŋaar muy dugg si gémmiñ waaw loolu dañ koy dugg si gémmiñ ba mu fees mu dajale ñaari tuñ yi hmm. ba mu jaar si kaw jëni des si biir ah. waaw moom borom géej la day napp moom noonu lay lekk noonu la yooyu kañ kuy seetaan documentaire di nga ko gis am na ci jën boo xam ne moom jën yi ñoo koy fompal tâche yi mu am par an day ñëw rek ŋaang du leen wan na nag ñoo ko koy fompal wa illaa du mën a lekk te jën yooyu tamit buñ koy fomp ci loolu la ñuy dund ñoom moo leen di màggal nit ñi dañ foog ne yàlla amul yàlla am na de coronavirus bii rek xam nañ ne yàlla am dëgg la ah, bii rek xam nañ ne yàlla am na waaw ah, yow gasama yàlla am na de nit ñi nañ bàyyi xel yàlla rek lii rek la yàlla a fi ne de dara newu fi ku yàlla nekkoo fi tubaab yi nag jàmbaar lañ lu ne mën nañ ko ñu ngi koy jéem ñu ngi koy def waaye yonent bi daal nee na amul feebar bu yàlla di wàcce loolul am na lu koy faj ku ko xam xam na ko ku ko réere réere na ko man alimahu faqad alimahu wa man jahilahu faqad loolu la yonent bi wax dana feebar bu yàlla wàccee ci kaw suuf rek am na lu koy faj ku ko xam xam na ko ku ko xamut xamul te li lay won ne feebar bu ne am na lu koy faj feebar bu génn ñu wax la turam ku ko tuddee coronavirus laaj naa leen sida ku ko tuddee sida grippe ku ko tuddee grippe wa allamal aadama asmaa kullaha lu jóge woon asamaan ne putt balaa sedd ñu utal ko tur wa allamal aadama asmaa kullaha démb lañ xamoon moo tax hmm, démb la woon yépp xamoon nañ ko day ñëwaat rek ñu ñuy koy feddaliwaat moo tax feebar bu génn ñu wax la turam américain bu ne am na turam dëgg la wala déet man damay jaaxal yàlla daal moo xereñ xoolal médicament yi niñ bare garab yi façon garab bu ne am na am na benn garab boo xam ne ñi am weyu dee yi boobu ma gën a yéem benn docteur bi mu bi mu ko joxee sama benn wëllale we yi dafa deewoon mu ne ma mu ne ko lii bu ko naanee nu muy nu muy nu muy wëralee wee yi mu ne ma na ko naan 6 mois rek xam nga lu garab bi di jar boîte bi un million lay jar wallahi mu ne ma gis nga bu ko naanee liñ ci soxla day daw ci deret ji ba ci we bi mu kole fa nag di def liggéeyam 6 mois la ko naan weyam yi moo gën a rafet yafa fa newoon sax ma di xool di xool ba mu yàgg ma ne dëgg dëgg nag yàlla may na nit yàlla may na nit de waaw ki gëm garab boobu ba ko waaye waaye na gëm sa na bàyyi nag ki gëm salaatul faatih ndax fa salaatul yegg garab yeggu fa ndax ba moom dafa boole leer boole ndox waaw fa salaatul faatih yegg garab yeggu fa yal nañu yàlla defal sutura yal nañu yàlla defal sutura ñu ngi jéggalu ñépp nag ñu ngi jéggalu ñépp xaj Mansour suñu nijaay ñu ngi lay jéggalu di wax ne hmm? waaw ñu ngi lay dello ziar bu baax nag ku leen ku ku ku ku ku ma bàyyi xel nga yow ndax bëgg gi nga bëgg sëñ Babacar Sy Mansour xalifa général de Tijaan ak moom it bàyyi gim la bàyyi xel yaag sa mag soxna Nafi ak seen mag yéen ñëpp soxna ummi tabaarakallaahu sëñ Babacar Sy Chérif. waaw di wax Si. Mm-hmm. kon ñëw dañu ñëw bëll suñu bopp. wallaay ndax géej waay yaatu na. Mm-hmm. kilifa diine yi par ya bari nañu fi. Mm-hmm. kilifa tareex bi bari nañu fi waaye ñun dañu ñun yàlla boole. dëgg la ñang dëgg la ñang. nga taxaw taxaw bu rafet. wallaay ñoo ko bokk. macha allah kon ñun luñ fi def rek yéen a ko moom. ndax yéenay njobootu Cheikhul Hadj Abdou Aziz bokk ak moom ci deret ñun ñu bokk ak moom ci taalibe nekk taalibeem kon yéenay suñuy sëriñ su ko defee kon ñu ngi santaan ñëpp gërëmaat ñëpp baluwaat àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan yal nañu yàlla boole baal yal nañu yàlla musal ci feebar bi kum laloon yal na wér ña ca jot a dem tey jullit yal na yàlla yërëm leen ña ca dul jullit it yàlla xam seeni mbir ñu ñun xamuñu seeni mbir waaye ña cay jullit sañ nañ leen a ñaanal yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen ña ca faatu tey jullit ña ca faatu te du ñu ay jullit nag ñun yoruñu seen mbir xamuñu seen mbir yàlla xam seen mbir yor seen mbir moo xam nu ñuy def ak nu muy def ñoom ay jaamam lañ loolu ñun yeggi wuñ ca waaye ñi ko yor tey feebar euh, dese ko ba tey yal na leen yàlla defal shifaan tamma laa yugaadiru saqaman wala alaman wala asaran wala wajaan ñim dalutit te ñun ñii ñëpp ñu bokk ci yàlla bu mu ñu dal ba beneen feebar bu dul bii bu ñëwee yal nañu teggi insha allah taala sax leen rek ci seen salaatul faatiha yi damay dëgg julli waxtu yu juróom laazim wasifa mën nga mucc ci feebar yu baree baree baree bare wallahi wa sharafil quran mën nga mucc ci feebar yu bari ndax leeru yonent bi moo dominé bépp cellule bu nekk ci yaram waaw Cheikh ñam leeru yonent bi moo dominé bépp cellule bu nekk ci yaram virus bu dugg ci yaram it mën na ko faj moom leeru yonent bi sallallahu alayhi wa waaw Seck Mansour waaw kay loolu mooy dëgg waaw mooy dëgg de ah ku gëm nag gëmal ku gëmul bàyyil ay leeru yonent bi lu mënul faj leneen du ko faj waaw leeru leeru yonent bi mooy leeru alquran waaw kuy jàng man dama gëm ne sax kuy jàng faatiha rek mën ngaa mucc waxuma la ak falaxeeg naa si nag waaw maa ngi dégg Serigne Cheikh am koy wax tey mu ne mag ñi faatiha sax ëpp na ci seeni taalibe xamuloo mu ne ñoom ku ñu yéene yiw duñ la jàngal faatiha dañ koy dagg Serigne Cheikh nee na mag ñi buñ la yéene yiw dëgg duñ la jàngal dañoo dagg faatiha buñ demee benn bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin mu ne am na ñoo xam ne foofu lañ ko yemale mu ne am na ñoo xam ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nag duñ ko romb mukk ndax nee na xaraam na ci ñoom ñu jàng faatiye nga ngir benn nit waaw <laughs> ah. yàlla leen baaxal ah, ku mel ni sëñ Babacar si nga foog ne ñaanam gu gàtt googu faatiha la loolu faatiha gaawee noonu hmm, ñoom ay xaraf rek la leen yàlla jox hmm, alif <laughs> ah, ñii laam ñii ha ñi nuun ah, nga foog ne yàlla hasard la mu def ko ci alxuraan nuun wal xalami lu tax mu teg wa lu tax mu teg ci wa ma yasturu kaaf ha yaa ayin saad hmm? ha miim ayin siin xaaf alif laam ra miim alif miim ra yaa siin yooyu nga yaakaar ne ay ay caaxaan la yàlla dafa tal fo bay koy ubbee alxuraan yooyu ay kot la mhm. yàlla daf ko codé benn bu ci ne buñ ci duggee sax dañuy duggaat ci geneen géej benn bu ci ne lim ëmb ëpp naa dina ak laaxira ndax mag mu toll ni yàlla bu ne nuun mag mu toll ni yàlla rek xool ba mu neex ko ne nuun ñu yàlla loo ci jublu mu ne wal xalami waxagut di nuun mooy jigéen xalam mooy góor mhm. nuun yow ndaw si wal xalami giñ naa ci góor gi ma la booleel wamaa yasturu na bu ngeen àndee ci farata doom juddu jeex na ko bëgg a weddi xam naa gaa yi seetaan weddikat yaa ngi ci baal leen ma rek waxin la baal leen ma pëyum jigéen nu mel moom nuun a niro sàkkara nu mel moo xalama niroo yaxam waa ma yasturuna mooy maniyu mooy daxaji doom juddu laxa daxa lax na linsaana fii xa minalaq doom juddu jeexul bii rek c'est terre à terre li ci nekk ku ko wax ñu dab la ci mbedd pes la la ko waaw say géey bii duma bàyyi ma fenn am na ku fi ñëw fan yële wax oh, pétitit métitit pétitit waaw mëntoon na am doom ma ne ko gëmoo salaatul faati gëm ko rek gëmee lee am doom